jërë ngeen jëf yéen ñi safoo Dakar Actu TV dalee nag jàmm ak seen actualité du jour dañu koy tàmbale ak mbirum ancienne députée de la treizième législature MS nag lay wuyo ak chauffeur am ñoom ñi nga xam ne nag ñoo di waa brigade bu gendarmerie bu cong ñoo leen teg loxo li waral li ni mel nag yéenekaay bile di observateur daal dina cay xuus bu baax moom mi leen nag di député boobu bokk rekk ci treizième législature bu pencum ndaw réew ma moom nag ngir rekk bëgg gis ci Macky Sall la teg rekk benn plan daal di rek dem foofule ca kër Macky Sall bu nekkee foofule ca Mermoz daal mbubbo ki nga xam ne rek moo di général Meissa Sele Ndiaye ngir rek nag ñu mun koo bàyyi mu dugg rekk ci noone rek la yebal chauffeuram bi mu wàcc nag ci oto bi ñu nekkoon ngir rek dëggal li ni mel waaye nag yëf yi mujjut antu ndax nag ki nga xam ne mooy di agent bi nekkoon foofu ci la woo beneen i collègue am bi nekkoon ci poste de garde bi ngir rek mu vérifier li ni mel ci noone rek la gendarme bi xam ne li ñuy wax dara amu ci ay kàcc la ak manipulation ba jamono ji ngay jamono ji nag nga xam ne ñu ngay wax ak yéen nag moom ancienne député boobule di wuy wuyoo ci turu ms ak chauffeuram boobule ñu ngay rek foofule ca brigade bu gendarmerie bu cong daal di nañ leen rek placé sous mandat de dépôt relation bu dox ci diggante Amy Léa ak Wally Seck ñu ngi koy waxtaanee bu baax jamono jile ci réseaux sociaux yi dëgg la am déet laaj bu samp la waaye nag nit ñaa ngi koy ŋawti ŋawte ñu dem ba di ci wax rek ki nga xam ni rek moo di Wally Seck di le chanteur du peuple day takk ñaareel ki nga xam ne rek moo di Amileya Sy Amileya Sy nag bu ñu koy wax rek xel day dem ci série bile di Karma nekk ka nekk fa actrice bu ñu ràññee loolu ci rôle bi nga xam ne rek mu nga koy incarné ci biir série boobu la ci mariage boobu la sax la ñuy desandi ba tey. ndax nag ki nga xam ne nag moo di sinapeur bile di Griff Diouf moom it daal na cay rek yëy yàbbi li mu ci xamle nag moom bile di Griff Diouf moo di nag xale yu bëri dinañu jooye ci weekend bi di ñëw ndax nag am na ku siiw kuy takk waaye nag kenn yëgu ko waaye bu dee Wally Seck nag li mu ci xamle rek moo di nag bu doon takk ñëpp koy yëkk yemu ci moom bile di Griff Diouf itam rek li mu ci dolli itam rek nee na takk bu graaw nag moo waroon am jouru mariage u maane ak ay Aïcha Tamba waaye nag waa le nga xam ne rek dafa nar a takk nag dafa tëbal bés boobule na ñëpp rek xaar mariage boobule nga xam ne rek mu ngi koy annoncé jëm rek ci benn célébrité buy waaja takk ci wiken end bile yile kàddu nag mu ngi ko biral rek ci benn plateau Sénépup buy daw fële ca Seneweb un million moom la Youssou Ndour roi du mbalax daal di may benn jaaykatu was moom nag ca Grand Bal bu amoon keroog rekk la gisanteeg ak Youssou Ndour gune gi la nag ab vidéo rekk la daal di def rekk di remercier ak di ñaanal kookule di Youssou Ndour di le roi du mbalax alxayri jib na démb ci animatrice bile nekk foofule ca TFM di Awa Gaye ñu gën koo xam rek ci Awa Gambia Awa Gambia nag moom léegi mu ngay wuyoo rek ci turu madame Silla mu nekk nag mbégte bu mag ci moom rawatina ci gole ci collègam yi fa teewoon démb ci boobule cérémonie de réception toute l'équipe de Dakar Actu rek ñu ngi koy souhaiter un heureux ménage te di ko ñaanal. jàmm ci sëyam boobule mbokk yi lii moo nekkoon seen actualité du jour ñu leen di jox dig daje ci yeneeni actualité du jour file ci Dakar Actu TV